How you doing? How you doing? You good? What's good? My G, what's poppin'? Y'all cool, huh? Yeah, right here. Look at it. Let's go. On est là, on est là actuellement en direct de 6 pour la préparation de demain. avec le Golden Boy of African allah and Viviane lan ngay wax suba gaañ ñi lay seetaan. yes. ah suba la incha suba direction New York le 10 incha African sama jëm African live jëm. le 10. le 10 incha allah New York City. Ah, And that's your name. That's your name. This is Shala Warinho. Warinho Senguinho. Yeah. Man, uh, le 24 septembre aussi, maa ngi dem Stockholm. Ca arena ba. Arena ba. Waaw, Stockholm inshallah. Jikro. Waaw. Jaajëfati. African land and African cemetery. All the way lumière lumière bi non mën nga ko wax ne Sadio Fadio di jaaxal. xam naa Abdallah. Sadio Fadio di jaaxal wala. tukki kanam wala. ah sama laas. Wali. Wali jox ma loxo. sama gars yi. alors. waaw nga dëgg la waaw nga dëgg de. yeah yeah what's up. jaajëfati maa ngi bëggee maa ngi bëggee moo fay. maa ngi léegi Alayım. Ya, ya, ya.

Allez, merci beaucoup. Yeah. Yeah. Yeah. No, no, no. Yang mama jago. Yang mama jago. Ini, ini. Yang mana komandan ini. Asal. Akak. Wow, jago. Ini tak kau.

woo ma ñoom ñu raad ñoom ñu raad est-ce que woo nga ñu raad les caméramans ah si si donc nday yaa ngi doon woon. jaajëf merci beaucoup. You good? What's good, my G? What's poppin'? Y'all cool, huh? Yeah, right here. Look at it. Let's go. On est là, on est là actuellement en direct de 6S pour la préparation de demain avec le Golden Boy African Music, machallah, and Tidiane Chidi de Kid Doomu Ndeye, on est en préparation. Lan ngay wax suba gaañu lay seetaan. Yes. ah suba la incha allah. suba la suba incha allah. direction New York le 10 lan nga ciy African sama jéem African live jéem. le 10. le 10 incha allah New York City. ah nee naa ne ah waaw waaw waaw 24 septembre aussi maa ngi dem Stockholm ca arena ba. arena bu mag waaw Stockholm incha allah. jërëjëf waaw. jaajëfati. African lion and African summer Lumière, lumière. non mën nga ko mën a sant Fadio di jaaxal. xam naa Abdallah. Abdallah Fadio di jaaxal. tukki kanam wala. ah ça va. Wally jox ma loxo. sama gars yi. jaajëfati maa ngi bëggee maa ngi bëggee moo fay. maa ngi léegi Bismillahirrahmanirrahim. Ya yo voy, ya yo voy. Ah,

Allez, merci beaucoup. Yeah. Yeah. Yeah. No, no, no. Yang mama jago. Yang mama coba aja. Ini, ini. Yang mama coba ini.

waaw waaw am na xel waaw waaw woo nga ñoom Ndoura woo nga ñoom Ndoura ñoom Ndoura est-ce que woo nga ñoom Ndoura les caméramans ah si si est-ce que